ci communiqué bi c'est deux choses complètement distinctes fële à la limite danoo d'accord ci ay termes waxtaan ba d'accord ci datu 15 décembre bi mais fii dafay préciser ne conseil constitutionnel moo war a régir lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllu organisation élection yi te ñii dañu war a dëppoo ak loolu donc li muy firnde mooy ne. les élections doivent pouvoir se tenir à date échue mmh. et surtout respecter les décisions du Conseil constitutionnel mmh. parce que nekk na loo xamante ne moom daf ko liggéeyoon ca ba mu fiy nekk et la phrase la plus frappante c'est la première phrase de son communiqué mmh. je vais essayer de revenir un peu euh, sur ce communiqué très rapidement pour mhm. permettre euh, vraiment euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy internautes yi ñu mën a bàyyi xel bu li may wax nii mhm. alors première phrase du communiqué bi. ouh là là une seconde je ne sais pas si vous avez. le texte avec vous c'est mm. euh, ma jox la ko. waaw je l'ai mu ngi nii. d'accord alors il dit mes chers compatriotes comme vous le savez depuis que j'ai quitté le pouvoir le 1er avril 2000 je me suis toujours abstenu de tout commentaire sur la vie politique sénégalaise. Mhm. fidèle. en cela à la ligne républicaine tracée par le président Léopold Sédar Senghor. J'ai décidé de rompre le serment que je m'étais fait car notre pays vit une crise institutionnelle sans précédent. Et réellement, le l'ancien président de la République Abdou Diouf, on le sait, c'est pas quelqu'un qui se prononce très rapidement ci li nga xamante ne moom mooy situation dëkk bi am. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui ba communiqué bu bees bi Abdou Diouf bindaat ko ko. man communiqué bii laa gëm. Mhm. communiqué bu njëkk bi dafa xaw a def ay suspicion ci sama bopp def ay doute ci sama bopp pour la toute bonne et raison que quelqu'un bi nga xam ne il a participer au processus pour que aujourd'hui ñu mën a taxawal ci réew mi loi électorale bu for ça m'aurait étonné que mu delluwaat. am une position contraire par rapport ak loo xamante ne moom moo ko fi jiite d'ailleurs démb wax naa ko fi ne président Diouf ak président Wade ces deux pères présidents qui sont tellement mal placés aujourd'hui pour mën a nangu li nga xamante ne moom le président Sall def dernièrement parce que ce mhm. serait agir à contre par rapport ak li nga xamante ne moom mooy seen gëm-gëm ak li ñu doon xeex bopp ba tey yàgg naa wax ne fii Sénégal yàgg naa am ay problèmes entre hommes et emprisonnement c'est pas la première fois même Wade lui-même a été emprisonné on l'a rappelé plusieurs fois sur ce plateau-là mm -hmm. mais ça n'a jamais été l'occasion pour que ñu reporter ay élections donc élection, comment mm -hmm. président Abdou Diouf nga xamante ne il a automatiquement suivi euh, il a pris le règne des mains de, du président Léopold Sédar Senghor donc kooku lu mu gàtt expérience am na lu mu jot dund as tuut ci ay crise politique yoo xamante ne amoon na ci règne Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf est un socialiste on est d'accord donc loolu yëpp doonoon na ma jaaxal wax dëgg yàlla que mu am beneen position autre que communiqué bi nga xamante ne moo jot a génn démb. Mm-hmm. ou alors premier communiqué bi am y a des non-dits tout n'a pas été réellement dit et comment mm-hmm. ça s'est fait pour que communiqué boobu ça soit rendu public ba ñëpp jot ci. ou alors il y eu un revirement de situation spectaculaire. boo xamante ne li muy wane kon mooy ne en réalité Abdou Diouf d'accordul ak Abdoulaye Wade kon ci gis-gis bi par rapport ak doxalin beeg leneen lu ci topp parce que communiqué bii ko génne bi mu mujjee génnee nii bii la nit ñi war a mën a sukkandiku réellement pour xam la vraie position du président Diouf maintenant on est dans un contexte boo xamante ne na bu dafa jur pëcc xoo ci réew mi mm-hmm. pëcc bi mooy nit ñi à la limite dañuy xëccoo primeur information mhm. et on se demande est-ce que c'est la vraie information la nit ñi di am est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop de fausses informations yoo xam ne dañ koy véhiculer soit pour tâter le pouls wala pour manipuler l'opinion publique par rapport ak li nga xamante ne moom moo nekk di xew ni c'est en cela que je dis mhm. qu'il faut être extrêmement prudent mhm. par rapport à toutes les informations yi nga xamante ne moom la ñuy jotee et que euh, même si c'est un ancien chef d'État je pense que c'est quelqu'un boo xamante ne il n'est pas inaccessible au point où on ne peut pas avoir la véracité de ses propos par hmm. rapport ak li muy tenir et surtout que communiqué bi nga xam ne njëkk nañu ko génne moom ak Wade ça a fait un grand tollé médiatique les gens en ont parlé commenté même sur les plateaux de télé mais au-delà de tout cela sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que booy suivre euh, ni ñi di toppee actualité bi. Euh, automatiquement interprétation dafay am te bu interprétation amee rek mooy ne soit ça ternit l'image d'un homme politique qui a été fort au Sénégal quoi qu'on puisse dire ou alors ça grandit l'image d'un homme politique boo xamante ne référence la war a nekk cim réew les anciens chefs d'État qui sont passés ici au Sénégal et qui n'ont jamais accepté d'être arrivés euh, dem dem de dem ba war a yegg foo xamante ne danoo war di reporter ay élections yeneen lu ci topp. Mhm. doonoon na ma jaaxal en tant que démocrate en réel en réalité ñuy accepter que report di am ñuy accepter qu'on mette en doute li nga xam ne moom mooy le travail des set sages le travail du conseil constitutionnel notamment ci processus électoral bi fi mu toll nii actuellement. Mhm. maintenant Nabou Cor. Mhm. président Diouf li mu wax ci communiqué bu mujj. loolu la nit ñi d'accord ñu ci bari bokk. mooy gis-gisu sénégalais yu bari. mooy ne dañu war a respecter li nga xamante ne moom mooy loi électorale bi respecter le calendrier républicain sénégalais et surtout jox valeur ak gëdd ñi nga xamante ne ñoom la tànn teg leen fii. te depuis des années ñuy organiser ay élections donc ce qui veut dire que ce n'est pas une première au Sénégal que ñuy organiser ay élections présidentielles après plusieurs régimes qui sont passés ici on a l'expérience pour mën a organiser ay élections yi war et surtout on a toujours eu des hommes forts qui ont assumé leur responsabilité quelle que soit situation de crise bi nga xamante ne moom moo fi nekk mhm. ba nga xam ne duñu laal lépp lu jëm ci wàllu constitution duñu laal lépp lu jëm ci wàllu organisation élection et que la la la réalité des urnes également a été respectée mm sous toute sa forme bu ñuy fàttaliku 2019 quand il y a eu le deuxième mandat du président Sall pourtant les résultats d'antan en 2019 ñu ci bari dañu ko doon euh, dañ doon protester comme quoi que résultat yi dañu ko annoncé woon. Mhm. te ni ñu ko annoncé noonu la amee mais terewul nit ñi lu ñu ñàkk ñàkk bañ a d'accord lu ay recours am am am finalement on a accepté que le président Sall avait gagné ses élections en 2019 et loolu moo tax mu mën a exercer mandaam de plus bi nga xamante ne def na ko jusqu'en 2023 donc pour man quel que soit. la crise quel que soit le degré de revendication bi nga xamante ne am na fi quels que soient les recours qui vont être déposés dafa am loo xamante ne c'est une règle d'or dans un état démocratique mhm. te boo bëggul dëkk bi di yàq wala nekk ci situation boo xamante ne dafay devenir ingérable mhm. li lay yombal mbir yi mooy nga respecter li nga xam ne sa ay prédécesseurs respecté nañu ko parce que ñoo la jiitu ci post président de la République mhm. et qu'ils ont su gérer les crises et un vrai homme d'État un justice et surtout respecter les règles de base fondamentales de la démocratie de ce pays mhm. qui touchent la constitution et notamment tout ce qui est loi électorale dans ce pays qui doivent être respectées voilà. d'accord jërëjëf Adjaratou euh, le président Abdou Diouf bu fekkee dafay indi démenti tey ban taxawaay le président Abdoulaye Wade waroon am chant même si Karim Wade c'est son fils et que moom lañ teree mu bokk ci les élections mhm. mais démocrate bi nga xamante ne moom moom lay wuyoo ndax xel nangu na mu bàyyi euh, ñii di ay député yu PDS ànd ci ñu euh, reporter ay élections rawatina mu concerner son fils même si euh, tey bu ñu demee ba ci biir cappandaw ba li li sooxe wax ji yépp mooy ñoom li leen intéressé mooy Karim Wade bokk ci élections yi. waaw xam nga président Wade aussi mhm. c'est-à-dire bu fekkente ne le premier communiqué ce n'est pas un communiqué officiel mhm. en réalité boo xamante ne mën nañu wax na ñoom ñaar conjointement ñoo d'accord ci benn gis-gis gi parce que lii en fait li Abdou Diouf def mhm. mooy wane ne tout simplement je ne suis pas dans cette même lignée encore moins bokkuma point de vue ak président Wade par rapport ak communiqué bi am nii est-ce que kon président Wade lui aussi à son tour ne doit pas pouvoir faire un communiqué clair et net mhm. boo xam ne soit dafay conforter sa position bu njëkk bi nga xamante ne lire nañ ko ci communiqué bi ou alors mu indi le contre par rapport à ce qui est en train de se passer parce que ce qui est euh, li li ci xaw doy waar mooy le fait que ça soit Abdou Diouf seulement qui apporte cette précision la ak communiqué bi le président Wade ne l'a pas encore fait nga Wade moom position am sax moo gën a doy waar position wu Abdou li tax mu gën a doy waar mooy ne président waat ci histoire politique u Sénégal bi bi nga xam ne moom bi muy nekk ci boppu nguur bi histoire bi ni mu tënki weewoon mooy ne moom chef d'état la naam ñi ñi bëgg nañu ko respecté nañ ko sur plein de choses yoo xamante ne vraiment liggéey na ko ci réew mi au-delà de tout cela il a beaucoup contribué notamment à l'expression de liberté ci dëkk bi en cela, on ne peut pas lui dire que ce n'est pas un démocrate, parce que c'est quelqu'un qui assez ouvert en termes de manifestation, entre autres. ku dem ba naan la initiel sax morceau bu xonq xam nga ne kooku kon bañul nga ñaxtu. Mhm. mais fin wu régime am bokk na ci li ko gën a daaneel mooy ne lenge yu bëri yu mu jëroon jox ko doomam et puis ñenn ñi dem ba jàpp ni président Wade wax dëgg yàlla ak lu mu baax baax. ak nit ñi lu ñu ko bëgg bëgg dafa dem ba bëgg a instaurer monarchie ci réew mi mooy ne moom bu fi jógee doomam toog. kon kookee sénégalais yi bokk na ci li tax ñu xeex ko ba vote sanction boobu am ci atum 2012 ba président Macky Sall falu avec toutes les séries d'injustices yi nga xamante ni itam amoon na te ñu note ko ci réew mi te mu naqari woon sénégalais yu bari donc kooku bu fekkente ne ancien chef d'état la non seulement moom moo jël lenge ngay jox ko président Sall mais au-delà de tout cela on a vu bi président Sall ñëwee son fils a été emprisonné finalement exilé au Qatar ñu toll ci ay élection 2019 mu bëgg bokk bokkul ñu toll ci 2024 mu bëgg bokk bokkul pour des contextes différents de celui de 2019 mais le fait est que Karim Wade reste doomu Abdoulaye Wade et Abdoulaye Wade reste toujours également leader de son parti de parti démocratique sénégalais donc kooku on ci double casquette bi mu am ancien chef d'État ak li mu xam lépp ci wàllu connaissance politique mais au-delà de tout cela l'homme politique du Parti démocratique sénégalais et père de Karim Wade kooku bu dee prononcé wu ci situation bi nekk nii nga xam ne ñu bëri jàpp nañu ne situation Karim prétexte la woon pour que ñu mën a également sukkandiku ci loolu ak sukkandiku ci leneen ba war a mën a reporter ay élections am quand il quand il doit même à la limite se prononcer sur la situation de ce pays je trouve je trouve que ce qu'il faut c'est une déclaration claire et nette de la position de Wade par rapport ak li nekk di am et surtout que nit ñi dañoo jàpp ne Wade est un démocrate étant un démocrate c'est étonnant que mu nangu report effectivement ci dëkk boo xamante ne jàpp nañ ne report bokkul ci liy gën a dëgëral démocratie réew mi. Mhm. donc il y a beaucoup de questionnements qui se posent sur la situation de Wade qui est encore beaucoup plus critique que la situation de Diouf bien que Diouf li tax moom mu am solo mooy ne contexte bi daf ci participer en 92 comme il l'a di ci processus bi réorganisation bi ba nga xam ne bi ñu koy joxe joxe nañu ko ci ay base ak ay principes yu clair principes yooyu nag chef d'état bu fi mënti nekk boo ñëwee li wóor ba wóor mooy constitution bi waroo ko dañu war a respecter le calendrier républicain après leneen loo xamante ne nii wax dëgg yàlla ci wàllu gestion administrative la ak ci yorinum réew mën nañ ko bàyyi ci sañ-sañu njiitu réew mi bien que le sénégalais apprécie ndax li muy liggéey baax na ci ñun wala baaxul ci ñun gis nañ ci sunu bopp wala ñàkk nañ cee gis suñu bopp waaye bu demee ba wax dëgg yàlla mu mën a jur loo xamante ne moom mooy jaxasoo ci am réew pour man chef d'état bu ne war na cee bàyyi xel te képp ku ci yëkkati kàddu itam li nga war a wax rek ne mooy présidentielle, il y a eu une erreur qui a été commise. Moi, ce report n'aurait jamais dû être fait au Sénégal. Normalement, les candidats auraient dû en ce moment battre campagne. Le débat aurait dû être orienté sur les questions de projet avec les propositions que les candidats font pour que Sénégalais puissent élire. Et surtout, ce qu'il faut leur dire, c'est que l'élection présidentielle doit se tenir très rapidement au Sénégal pour rectifier de donner un second il faut avoir le courage de tenir un langage de vérité mhm. tel qu'elle pour que kenn ku ci nekk nga xam sa wàll ci réew mi bu juumte amee ñu wax ni juumte am na fii xool naka la ñuy jubbantee ba yëf yi mën a teguwaat ci yoon. d'accord jërëjëf Adjaratou euh, Mamy après euh, tout ce tintamarre autour euh, de cette enquête euh, parlementaire mm. dañu ubbi benn enquête judiciaire daanaka muy stoppé li nga xamante ne mooy enquête parlementaire bi nga xam ne moom la ñu naroon wëyal pour. Euh, Euh, dàq élection yi ba jëmmi jamono pourquoi bruit bi yëpp tout autour bu fekkee ni euh, mujjantal ba dañuy ubbi enquête judiciaire ndax mënuñ ko woon njëkkee. mais li mooy tout ça pour ça en fait c'est-à-dire qu'on a créé tout un brouhaha fait tout un bruit. Mhm. jaxase euh, lépp loo xamante ne warul waru waru woon a mën a nekk. pour que mhm. finalement ñu mujjee ci lii et ñoom xamoon nañu au niveau de l'Assemblée nationale. Mhm. que ne bu ñu defee vote li nga xam ne moom mooy enquête parlementaire bi bu ñu ubbee information judiciaire enquête parlementaire bi day tëb. loolu xamoon nañu ko. c'était une évidence dès le départ et je pense qu'il y a eu même des députés yoo xam ne fàttali nañ leen loolu te man wax naa fii ne ñoom bu fekkente ne danoo am problème ak ay juge wala ay magistrats dañ leen porter plainte. Mhm. Pourquoi passer par l'Assemblée nationale? Parce qu'il fallait trouver un moyen de pouvoir bloquer lu processus. Mhm. La vérité c'est ça mooy na ñoom nu ñuy def ba bloquer processus ba processus bi bañ a dem loolu moo nekkoon seen jubluwaay loolu moo leen taxoon a jóg en réalité def nañu ko tey coow li bari na wax ji bari na waaye mujjewul fenn. enquête parlementaire bi du mujjee fen xam nga dañuy fàttali. Mhm. ni euh, temps yi nga xam ne Ousmane Sonko mu ngi nekk député enquête parlementaire ba mu fa amee bañ koy woo pour mu ñëw taxaw. Mhm. mais moom demul woon. nga jiwul. waaw ku mënta woo député mu ñëw wuyu mokkum député man député boobu mën naa woo magistrat mu ñëw taxaw nga di ko àtte nañ waxante dëgg magistrat am nañu ko war a àtte ce n'est pas que quelqu'un boo xamante ne it dafay dafay vivre dans l'impunité lu ko neex def te dara du ko ci fekk am na fu ñu ko war a mën a jaarale ci wàllub yoon bu fekkente ne dañoo jàpp ne dafa jalgati foo xam ne foofu la ñu koy tegee ci yoon donc pour man lii yëpp poudre la woon boo xamante ni yëkkati nañu ko rek fatt bëtu nit ñi sonal nopp nit ñi ak ay débat yoo xamante ne mënoon naa ñàkk mm-hmm. et que finalement fii lay mujjee mooy ne information judiciaire bi dañu ko day ubbi et évidemment que dañu ko day ubbi parce que accusation yi dafa grave à tel point que mënuñu ko noppi waale dara mais bu dul loolu sax juge fa nekk xanaa am nañu envie seen der par rapport ak loo xamante ne waxal nañ leen ko mais loolu warul woon en aucun yàq wala dakkal processus électoral bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko fii ba Badou Badara c'est ça la vérité ils auraient pu porter plainte yoon def liggéeyam processus électoral bi dox normalement mhm. parce que problème bu am ci diggante ay député yu jàpp ni de seen candidat dafa war a bokk bokkul am na am na corruption bu ci am loolee lan moo ci yoonu processus électoral bi bañ koy war a mën a dakkal pour la volonté d'une personne surtout une personne qui n'est même pas là mm-hmm. donc aujourd'hui en fait les gars ont voulu faire un burger salade tomate oignon frère la totale dedans et puis après le burger n'est pas consommable personne ne peut le manger mm-hmm. li ñuy def mooy dañ leen koy jàllax te waxoon nañu leen ni lépp loo xamante ne c'est des actions politiques yu ñuy teg ci réew mi pour le but d'une seule personne arrivera un jour où eux, ils devront payer les conséquences de leurs actes par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Parce que le malheur mooy toutes ces décisions politiques yu ñu yóbbee fii loruñu sax ñoom seen bopp kese bu dee dañoo yaakaar ne foofu la mooy dañoo lolaare askarub lëmm moo xamante ne ci benn date la ñu jafandiku woon donc assemblée nationale bërëb la boo xamante ne li ñu fa war a àtte ak li ñu fa war a décider tout le temps ça doit être dans l'intérêt du peuple mhm. et tout le temps ça doit aller dans le sens de pouvoir conforter ce qui est les normes démocratiques de ce pays ça ne doit pas être l'effet contraire parce que effet contraire bu ñu fa amee rek bu boobaa on aura trahi la confiance du peuple mhm. et surtout on prendra des décisions yoo xamante ne finalement li la ñuy jural et moi j'ai envie de voir toutes ces personnes yi nga xam ne ñoo yóbbee président Sall muy reporter élection yi comme situation bi nu mu demee ban appui ak ban aide lañ koy apporter lan la dialogue lañ moo leen moom lañ koy apporter nañ dem toog ci table waxtaan waxtaan kay moo war a jiitu décision bu ci bu yenn décision yu drastique yi balaa nga koy jël day fekk yegg nga foo xamante ne xam nga ne fii c'est un point de non retour mais il n'y a jamais eu en réalité de problème profond on a voulu faire croire aux Sénégalais que dafa am crise institutionnelle bu fi am crise institutionnelle nag amu fi dëggantaan ndax assemblée nationale mu ngi liggéey liggéeyam ni mu waree conseil constitutionnel mu ngi doxee ni mu war a doxee benn ci fonctionnement yi taga témbewul wala taxawul kon amul woon lenn lu dul lu doon justifier enquête parlementaire bi mhm. bi jur vote de loi bi nga xamante ne moom moo ci topp par la suite ba finalement ñu reporter élection ba Sénégal nekk ci situation bi ñu nekk nii à eux d'en payer les conséquences. Mhm. d' accord jërëjëf euh, ajaratu euh, mami alors beneen point bi nga xamante ne moom la ñuy euh, waxtaanee di Karim Wade mi nga xam ne démb ci benn tweetam daal di nay fësal mbégteem ndax nee na dafa yëg ni Ousmane Sonko dafa nekk en négociation avec l' état du Sénégal